mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nii bu baax leen di balaq te di leen balaq di jël ci nuyoo bi nag saaxib fadila Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke xalifatu am bi taifatul muridin sunu boroom yàggal ko fi ba kattanal ko ba li yéen ñu am li ba maam tedd Seexul Xadiim mu def ko nu ko bëggee te ànd ak taalibe yëpp di suñu kilifa suñu sëriñ suñu jëriñ si Ahmadou Mokhtar Mbakke xalifatu Cheikh Mouhamadul Moustapha sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér. di ñaanal ummi islam yi yëpp njabootu suñ tubaay gépp ñu ngi leen di ñaanal bu baax a mbokk yi boo leen gisatee boo leen gisaa jataay bi ngeen xam ne lu rëy amat na mooy màggalu Daaru Xudoos di ñaar fan ci maaram yem ak weeru tubaab di 29 septembre mooy bis bi nag bisub Daaru Xudoos la bisub Sénégal gépp la bisub Touba la ñoo ngi sàkku si mboolem jullit ñëpp ñu ñëw teew ci màggal gi ndaxit it màggal gi màggalub sëñ Tuubaa la kon màggalu sëñ Tuubaa màggalu jullit ñëpp la ndax it màggal gi bis bi sëñ bi ñëwoon bis bi sëñ bi ñëw ñibbisi woon Tuubaa sëñ bis bi mu fanaan si woon Tuubaa bis boobu la màggal mooy bis bi sëñ Moodu sëñ Tuubaa waxoon sëñ Moodu sax na ko bis ñibbis bis bi ma fanaan si bis bi ma suñ borom dogalee ab dogalam da ngeen ma defal bis boobu noonu mooy bam na naqaltani min haali ajil tarbiya yaa xayra rabbin wa li ajli tarbiya wa kammala tarbiya faraqtani wartani laha wa makratin xilma habdan xadiman maakisan fi tuuba wa kuffa anni biya xutuuba kon baydi wooyu la si sëriñ bi waxoon mooy yaa ma jëlee Daaru Salaam indi ma Tuuba na nag ma tarbiya ginnaaw ba tarbiya mën na ginnaaw ba tarbiya ba ma tarbiya ba ma tarbiya ba pare na waaye ma kammala tarbiya tarbiya mën na kon nag faraqtani wartani nag ma delloo Tuuba kon nag nee na habdan xadiman maakisan fi tuuba moom nee na jàmm yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la waaye nag Touba lay sax fa lay dëkk mooy waxoon suñ Mourou Moussa nag bu suñ borom dogalee ab dogalam danga ma indi Touba kon loolu bis boobu lañuy ñuy màggal muy ñaar fan ci muharam si woo ñëpp di si woo mu islam ñëpp bàyyi ñu kenn bis mi nag euh, bisu euh, jàng alxuraan loolu mooy bu ñu suba ci neuf heures gi nañ jàng alxuraan yendoo ko ba une heure ñu jul tisbaar berne daal di def Euh, ay lor def lépp lu ñuy wax li ñuy baaxoo def ci heure boobu noonu ginnaaw ginnaaw takkusaan dañ fa def waxtaan bu am solo mi solo ginnaaw waxtaan bu gën a waxtaan am solo ginnaaw bu bu màggalee ba xëy suba tamit nañ def ak conférence mooy euh, euh, cérémonie officielle nañ ko fa def di ñëpp nag ñu kenn di ñaanal ñëpp nag di ñaanal suñ mën taxaa suñu borom yàggal ko fi kàttanal ko mastatatu ma tawfiq illa billah ali tawakkaltu wa